أياس من إله إن جيولي إبليس إسنا تيتو بيا ولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي بوكي طالبي ginnaaw bu nu jotee ndigal ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jàkkaarloo ak jëmm ji nga xam ne ku xool jëmmam ji xam ne jéegoom yëpp mi mu jëmee ci dundal lislaam ak liggéeyal Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak sàmm ndono li nga xam ne moom la ko fi Serigne Touba Cheikh Salihu Mbacke bàyyee waxtu wii nag saa yéen ci masaa aksi da ngeen gis jataay bii mu ànd ko ak bokkam yu tedd yii nga xam ne ku jàkkaarloog ñoom sam xel dana dañ ci Serigne Saliou ndax ñoom ñëpp njabootu Serigne Saliou lañ te ñooñu bu ñu leen tuddee mooy yoonu mu rit liggéey boobu mooy liggéeyu xel bi mu baaxoo woote at mu jot ren ji ñu jàpp ko gaawu le treize yamoo ak ñaari fan ci weeru safar moo tax bi tool yi ñoree mu jógalaat boppam dem ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ndax moom nee na du ma def mukk lu ma tegul ci ndigal te jamono ju ne ki fi nekkal Serigne Touba mooy sama kilifa moo tax bi mu demee Serigne Muntaxa ànd ci ak xel mu dal ak njort lu rafet waaye na ko nañ ko yaatal ba murit yëpp buñ ca mënee dem ñu dem ci moo tax mu toog ak kilifaam waaye xam ngeen ne doomam ji di taalibeem di xaritam di sëriñ Seex Amar jamono ju ne sëriñ bi dadaa wax na ci jëwriñi daara yi la bokk ca daara yi xel koom mooy daaraam liggéeyub xel koom bu masaa saa ñëw lépp mooy doon jëwriñ ji mu àndaat ay bokkam toog fii sëriñ bi nag di wax ne na mu ko daan baaxoo defee rek la koy defee mooy woote bi ginnaaw bu mu jotee ndigalul xalifa général des mourides di sëriñ Mouhamadul Mountakha sëriñ Saalihu Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi sëriñ bi nee na mi ngi koy yëgal ñëpp bàyyiwul kenn. ñu ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Seex moom sëriñ Saliou di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mouhamadul Mountakha ginnaaw bi ci sëriñ bi jëlee ndigal ci moom te koy ñaanal liñ daa ñaanal sëriñ saaliw mooy yàgg fi te te naa li sëriñ Touba yi mu liggéey ci lu bare bare bare bare bari te ñu ànd moom ginnaaw loolu nag li waral jataay bi mooy li daa am rek loolu moo amati loolu mooy lan mooy sëriñ Saliou lim leen bàyyee te ko ci sëriñ Touba loolu mooy liggéey ak jaamu yàlla liggéey boobu nag moo waral tey ji jataay bi ndax tooli xelkoom yi waxtoom dafa jotati tax sëriñ bi wooteeti woote bi nag yaatal na ko ba mi ngi ciy woo bépp jullit rawatina ñi mu bokkal sëriñ Tuubaa ak taalibi yëpp ak fa fi taalibi nekk ak fa fi nekk mi ngi lay woo ci liggéey bii ndax liggéey bi kat du liggéeyub sëriñ Seex moom sëriñ Saaliw liggéeyub sëriñ Tuubaa la liggéeyub sëriñ Tuubaa ku ci góorgóorlu ba jiitu yaay jiitu ba faaw te kenn duutal rab kon nañ fexe ba bokk ci ñi jiitu te a bokk ci euh, ñi des ginnaaw sëriñ been mi ngi leeral ne mboolem jëwriñ ja fa nekkoon te doon liggéey sant na leen gërëm ndax ku dem ba teg sa bët ca tool ya da nga xam ne ñii kat duñu woon di nelaw liggéey diggante gañ diggante jaayante ko di ko gën sëñ mm-hmm. ña nga ca bu kon nun ñii fay dem ñëpp dañ cay barkeelu ji rek waaye la ca matoon a def la cëpp def nañ ko ginnaaw loolu it nii muy yaatule jëwriñ ji muy euh, Cheikh Amar fam ko féetale woon ca tool yi ak lam ko ci féetale woon ak sas woom ca féete woon ci jëwriñam moom mi nga xamante ne bi yëpp ne dara booyu ci ma koy dox ma ngi koy dox kem kàttanam mi ngi koy ñaanal ndimbal yàlla fekk ko ci ak baaxub sëriñ bi ba mu koy gën a man te dara bañ ci dellu ginnaaw sëriñ bi mi ngi ñaan képp ku ca teew ah eh, yàlla ak sëriñ Touba fajal say aajo saa yi rek baatin nga daa na sëriñ ba daa wootee wala na sëriñ ba daa wootee ba nga ñëw nekk ci woote bi ne ba nga ñëw mbokk ci nekk ci woote bi defuñu ko ñaar ne defuñu ko ñaar ben lañ ko def. ne ben rek lañ ko def. incha ne inshallah allah. ñoo ci fasaale murid yëpp nag. ne ñu ngi ci fasaale murid yëpp. wala képp ku bëgg lu baax. wala képp ku bëgg lu baax. te te yàlla may ko ndimbal. ne te yàlla may la ndimbal. la ngay woote. la ngay woote. yàllay kese la. ne yàllay kese la. génnul sëñ Touba benn yoon. génnul sëñ Touba benn yoon. kon nag. ne kon nag. fi may daaneel rek. ne fi muy daaneel rek. ndax boo bu bu image bi boo toogoon rek nu toog. nee Mbakke yow kat sëñ Cheikh boo toogoon rekk ñu toog. ñu ñu tas jataay bi. nee ñu tas jataay bi. daañu xam ne farata rek ngay woote. nee daañu xam ne farata dong ngay woote. kon nag nañ daa wuysee. kon nañ daa wuysee. dañ la wuy see noonu dañ wuy see noonu wuy nañ la tey nag ne si nañ la tey nag waaye buñ demee ba ca dugub ja waaye buñ demee ba ca dugub ja wala noo ko bëggee wala noo ko bëggee daañ ko defee na nga ko bëggee daañu ko defee na ko bëggee incha allahu incha allahu di la dégluwaat di la dégluwaat ba beneen yoon ba beneen yoon ñi ngi sant Serigne Cheikh moom Cheikh Saliou Mbacké bu baax ci boole gi mu ñu boole ci liggéey bi ci liggéey li yàlla ndax tool la boo xam ne toolu yàlla la woon bu sëñ Saliou bayoon ba mu set wicc mu mën ñu ci lool nag ndax nekk ci guddeeg bëccëg kon nag bu ñu woowee ci setal tool bi daf ñoo bëgg dimbali ndax taalibe yi dañoo dëkkee di tooñ seen borom te yaakaar naa ne xel koom bi ko sëñ Saliou di sanc yaakaar naa bëgg dimbali jaam yi rek a taxoon kon nag ñu ngi ciy sant sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax ci lim ñu ci boole di ci woo mbooleem taalibe yi rawatina waa Daaru Salaam ka nekk ca bopp di sëñ Mor ak sëriñ Cheikh Anta ma nga xam ne moo yor seen kaddu. waaye di woo fédération daayira Daaru Salaam yëpp ñu ngi leen ciy woo di wax bi yëpp nag kuy ñëw ne indaale jumtukaay bu muy liggéeyee. Ah, dañuy jottali rekk kàddu yi bàyyi ko ci moom muy woote bi nga xam ne ak ndigal li jëm ca toolu Touba Daaru Salaam ba ah, ni ko sama waajur sëriñ Saliou waxe moom sëñ Abdou Lahad ah, Touba Daaru Salaam day. ab tool ci biir toolu xel xelkom day ab waar ci biir toolu xel xelkom du ab tool ab waar la euh, euh, di benn liggéey bi sëriñ bi nag sàkkoon ay kilifa ak i jëwriñ yoo xam ne at mu jot ñoom la fa yebal moom la ma yónni nag ne ma naa yeesal ndigal loolu jottali leen ko ne ñi nga xam ne kilifa yooyu ak jëwriñ yooyu nga xam ne tànnoon na leen ne ñooy féete Touba Darou Salaam foofa la ñuy féete ba tey euh, ren nag ñooy bokk wenn benn bis bu ñuy bu ñuy Euh, euh, kilifa yooyu nag sëñ Moustapha Diakhaté dana dana si agsi ci kanam tuuti yegg ci seen i tur waaye man nag damay woo euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkal Cheikh Abdoul Khadir ñëpp rawatina ñi ma bokkal sëñ Mour Abdou Khadir ñuy ay doomam wala ay soppeem wala ñoo xam ne dañoo wëllërante woon ak moom ak fuñ mën a ne noonu mu daa wootee rek. Euh, di woo ñi nga xam ne daana daanañ ànd ak ñoom ci liggéey bi te ñuy ay jëwriñ ak fu ñu mën a bàyyi ko ci gox yi kon sëñ bi nee na mi ngi leen di woo mi ngi leen di soññ tey ñu taxaw taxawaay bi nga xam ne moom la daan jot jotli ay kàddu ci suñ jëwriñ sëriñ Abdoul Ahad moom sëriñ Modou moom sëriñ Abdou Khadir ngir jëwriñ yi nga xamante ni ñoom la sëriñ bi wax jox leen digal ñuy jëwriñ yi nga xamante ni ñoom lañ sas tool yi Touba Darou Salaam Maodo Mouride jëwriñ serigne Abdul Ahad Mbacke mom serigne mohammed mom serigne Abdou Khadir tek ca serigne mohammed si ak serigne Ibrahim si serigne Abdul Samad si Darul Muhti, serigne Cheikh Niang Touba Afia Ribo Moustapha mom serigne mohammed lu khairi Diakhaté mom serigne Amsatou serigne Fadlou sanc sañ ci Darou Salaam ak mbollem ñi aji ci ak tundu eh, Bawol yi and ak mom mboolem tund wépp mi ngi leen mi ngi leen ko yëgal di ñaan mbooleem talibe yi ñëpp daja fa sàkku fa ngërëmul sëriñ tubaa te ñaan sëriñ tubaa daje ci ngërëmam maa ngi bëgg a wax ci turu Cheikh Amar taalibeeb sëriñ tubaa Cheikh Saliou Mbacké sëriñ bi Cheikh Amar mi ngi lay siyaare ne sëriñ Saliou demul fen ne sëriñ Saliou da ko woowoon xool ko bëtum yërmande bëtu yërmande ba ko sëñ Saaliw xooloon moo tax seex man li mu man seex ne lii mu man duy at lii man du xam-xam lii mu man du alal lii mu man du kattan ne sëriñ Saaliw woo ko baaxee tibb teg ci loxoom ne tibub sëñ Saaliw nag ak njëmbatal sëñ Saaliw Cheikh Amar ne da nga koo suuxat waaye sempi woo ko ne mooy ne yaa ko dëgëral Cheikh Amar ne yaa ko kattanal ne daana woote tey ànd na ak journaliste yëpp presse si réew kenn gisul waaye Cheikh ne fi nga ko indi tey xelam ak yoor-yooru tayam bii fàttali ko yoor-yoor yi mu daa toog ak sëriñ Saliou ndax fii mu ko defee appel bi Cheikh ne musu fee defee appel kenn musu fee defee appel bis baa ngoog la treize la nee na ñëpp ñëw la mu ko daa defee nag ku yeex da ngay dajeeg Cheikh mu góob ko ba dem Cheikh moom du yàgg cib tool ndax ndigal kon nag Mbàkke Cheikh ngi lay gërëm mi ngi lay sant. mi ngi ñaan nga yàgg fi lool téwér jërëjëf Mbacke